jëf ya saar ñett noonu pool xool jàkk géew ba ne leen bokk yi ci xel mu dal laa doxale ci kanam yàlla ba ci bésu tey bi ci kaw loolu saraxalekat bu mag ba di ku ñuy wax ananiyaas sant ña taxaw ca wetam ñu fel gémmiñam pool ne ko yàlla dina la dóor yow mi feq bay saamandaay miir buy jooy bu ñu weexal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 ba mbooloo ma xàjjalikoo ndaxte sadusiyen yi nanguwuñu ne ndekkite mbaa malaaka mbaa rab dara am na ci waaye farisiyen yi nangu nañu yooyu yépp ci kaw loolu nag coow lu bari daldi jib ñenn ca xujbakat ya bokk ca farisiyen ya ne bëreet daldi xulo bu metti ne gisuñu dara lu bon ci nit ki su fekkente ne raba ko wax mbaa malaaka noonu xulo ba daldi gën a tàng ba kilifa ga ragal ne nit ñi dina ñu daggaate pool kon mu sant xarekat ya ñu wàcc nangu pool ci ñoom yóbbu ko ca taataaja ca guddi ga nag borom bi taxaw ci wetu pool ne ko takkal sa fit ni nga ma seede ci yerusalem noonu nga may seede ca rom bi bët setee yawut ya daldi lalpexe pexe ñu dige ci ngiñ ne duñu lekkati